dëgg-dëgg nag ah, gis naa benn décès bu indi ay coow quoi ci réew mi ci ci internet bi ci réseaux sociaux réew mi sax ci réseau sociaux yi am ko gaañ yàlla ko yàlla yërëm te xaare ko na ma dégg ay nit yi di ci wax ay wax yoo xam ne am na ñu naan non kenn du ko ñaanal kenn du ko ñaanal <laughs> non jullit du ñaanal xaw ma lan <laughs> yow ku la def jullit yow yaa dëgër fit yow mun nga waat ni yow jullit nga yow yow mun nga ko waat yow yow mun nga ko waat boo amee sa iri njaaloo boo waree fen-fen nga fen fa boo waree sàcc nga sàcc fa boo waree tiriyaande nga tiriyaande fa boo waree koromp nga koromp te yàlla nee na jullit du koromp yow lépp lu yàlla di tere nga koy tere nga nga koy def boo mu des lu du am nit ku dee nga naan non jullit du ñaanal chrétien <laughs> kon yow jullit nga nii yow yaa dëgër yow yaa ma fit yow jullit nga mun nga waat ci yàlla ne yow jullit nga mun nga waat ci yàlla ne yow boo dee doo dem safara <laughs> bu sàngara jot nga ne ko tuy bu yàpp nga xool gos xool droit du ci mbaam bi tuy kenn ci nday ñaawteef yi la bokk te Sénégal dàqu duul kuy duul kii dañ lu jullit la fen rek adduna te koo fen adduna wi la ko fen <laughs> mu ne la jullit la mais kooku dëgër na fit de man de ñaanal naa ki dee yàlla ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana man na ma ci affaire yooyu de ki dee xaw ko nag musuma ko seetaan xaw ma sax lan la dëgg-dëgg parce que man du ma seetaan télé yi gis naa ko daal comme nu ko gisee gis naa ko ci internet bi xam naa ne daal ab nit dee na yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana loolu laa koy ñaanal waaye yéen ñoom ñi leen jiite 90 pour cent ne nañ ay jullit lañ ñoom la ñuy xeexal nii de <laughs> jullitu a neex ñoom ñi ñuy xeexal Macky Sall nee na jullit la Amadou Ba jullit la Ismaïla Madior Fall jullit la Antoine ñàkk jom jullit te ñoom ñëw saa yi yeewoo ñoom jullit yi di saag seen moroomu jullit yi ne ñooñu ne ñoo leen sàcc ne ñoo leen fen seen frère jullit yooyu ñoo ñoom dañuy yeewu ne ñooñu ay sàcc lañ ay fenkat lañ ay trian lañ ay juulkat lañ te ñooñu ñooñu tamit dañuy wax ne ñoom ay jullit lañ <laughs> waa kon dëkk boobu moom <laughs> noo doon ay jullit moom <laughs> wala sa papa da doon jullit rek nga yeewu doon jullit rek ne jullit nga quoi mais ñoom jë waa dëkk ba ñoom ñu ñu dàq naa wuub saa ñoo ñu ne nañ ay jullit la ñoom dañuy julli ni ñoom <laughs> di julli ni ñoom di jàpp ni ñoom <laughs> di woof ni ñoom te ñoom de te ñoom ne nañ ñoo ñoo daq fen ñoo dàq sàcc ñoo jàpp njubleen kon kay sa waaye dëkk boobu koo ñaanul dangay ngay ngay kàcc rek mais mun nga koo ñaanal sincèrement yow munoo war ni yow mi jullit nga dangaa dëgër fin rek yow mi nga ne nga ne da ngaa taxawee taxawaay jullit ba doo ñaanal chrétien ba wala doo ñaanal na ah d'accord d'accord ko yow jullit nga nii hmm, kon boo xooñee da ngay wër fële ab caga boo boo boo tëddee <laughs> jullit nga de ah d'accord kon yow nja doo njaaloo de ah yow doo fen de hmm? yow doo triande doo sàcc doo corrompre hmm? déedéet doo def yooyu yëpp doo ko def jullit nga kay boo demee ba yow doo njaaloo doo fen doo corrompre doo sàcc doo triande respecté li yàlla wax yëpp bu boobaa nga ne julli nga bu boobaa ku dee te bokkul ci yow bu ko ñaanal mais bu dee yii yëpp munoo ko pour l'instant moom mun ngaa ñaanal ku dee dégg nga mun ngaa ñaanal ku dee te bañ a nax sa bopp nag te xam ni matagoo jullit de matagoo jullit de bu fen jotee yaa daq ko duul sàcc jotee nga sàcc boo ko jekkoo sàcc boo ko jekkoo portable jàmbur nga mu fàtte ko fenn nga ne ko yollo si yóbbu nga ne jullit nga dalal portable jàmbur sàcc bi nga doon nga naan ay jullit nga bu dul jotee nga dul ba diwoo ko nga ne jullit nga hmm? pour l'instant yaakaar naa ni war ngaa mun a ñaanalaate ci ki dee ah, ba ba ba nga toll ci maqaamay bàyyi sàcc bàyyi fen bay trian bàyyi njaaloo bàyyi rawale bàyyi koromp boo ci tollee bu boobaa nag nga xam ni yow waaw dëgg mun nga mun nañ la jullit nga dëgg wala jege nga ko sax bu boobaa nga bañ a ñaanal koo xam ni du jullit ni yow mais tànk yaa ngi def yii <laughs> mun ngaa ñaanal de waaw waaw way yaa ngi def yii may def nii mun ngaa ñaanal sa mbokk bu bu fi génnee sa mbokk la de tane woo ko de loo ko tane loo yaa ngi joué xibet nga ne yow jullit nga <laughs> yow yow xibet bi yaa ngi ciy rey sa bopp yaa ngi ci loterie loterie national sénégalaise ba da ca sa bopp fas bi ko dàq daw ak euh, équipe nationale euh, football bi match bi moo moo moo gagné match bi yow jullit nga <laughs> dugg leen ci baar Sénégal yi ngeen xool ñu fa gën a bëri benn genre nga fay fekk benn pôle Mohamed Abdallah Serigne Touba euh, Ahmadou Bañes Limaamu ñoom la ñuy tudd ñoo fa fees del naan jox ma kaas bi jox ma flag bi jox ma whisky bi jox ma champagne bi ñoo fa fees del dugg leen ci baar yi ngeen xool ñu ngeen fay fekk caga ji doo fa fekk caga ji ci bëri ay Khadija Amina ñoo fa toog di càkkatu de bi seen ndarpan yi di xaar ku leen yóbbu karte da ngeen di <laughs> ñëpp pour cent yëpp ay Amina Khadija Fatuma Bintu <laughs> ñoo fa nekk de góor ya nag Abdullah Mohammed Moussa Insa ñoo fa nag ñoom tuy ya waaw ñoo nekk ci x eh, eh, casino ya ñoo nekk ci xibet yi mënul duul toog na <laughs> man boo yeewu gis Sénégal ñaan non bu kenn bu du ñaanal <laughs> jullit du ñaanal chrétien <laughs> kon Sénégal toll nañ foofu ci jullit kon jullit yi macha allah kon Sénégal neex na ah waaw allah Sénégal di dëkk jullit la dëkk bi ay jullit yu mag lañ la ilaha illallah duñu fenn duñu njaaloo duñu sàcc duñu pari foot duñu triant duñu duñu corrompu duñu ay jullit lañu ay jullit man jullit ay macha allah ay jullit lañ kat duñu ñaar duñu ñaanal chrétien non réew mi non réew mi moo neex barke alxuraan waaw donc euh, voilà ki nga xam ne moo génn àdduna xaw ma ko mosuma ko gis mais maa ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla xaare àjjana waaw voilà yàlla na ko yàlla ñun de toppewuñ ko dara parce que xamoon luñ ko dara tamit ah sàccul suñu alal dund na ba dee sàccul suñu alal triandewul suñu alal toogul ci média yi di rayaate di fen yooyu yëpp gisaluñ ko ko ni Ismaïla Madior def kon Ismaïla Madior bu dee war ngeen ko ñaanal quoi kon moom chrétien bi bu dee war leen ko ñaanal mais Ismaïla Madior mun ngeen ko ñaanal kon Antoine ñàkk jom tey suba bu deewoon da ngeen koy ñaanal seen mbokku jullit laa kon yéen seen mbokku jullit yi nii lañ mel daal fen ak sàcc ak rayaateeka tiriyandeeka ñoo ngeen di ngeen di ñaanal <laughs> ñooñu ngeen di ñaanal la ah. kon Ismaïla suba bu deewoon kenn waratu ko wax te jullit la dee ah. kon bu ko kenn kii de nekk ñëpp ñaanal la ah. kon Antoine ñàkk jom bu dee suba ne ko ñëpp ñaan kon Macky Sall bu dee suba ne ko ñëpp ñaan la d'accord mooy jullit bi ah comme <laughs> Marème Faye Sall suba bu deewoon dañ ko war a ñaanal la mooy jullit bi ah <laughs> kon ñoo ñoo jullit yi ah ñooñu la ñooñu la ñu war a ñaanal hmm, d'accord d'accord d'accord d'accord <laughs> sourla waaw donc euh, voilà ki nga xam ne moo génn àdduna Jean Pierre xaw Jean Pierre je pense maa ngi lay ñaanal yàlla na suuf oyof sa kaw sa bàmmeel leer naññ ne gaañ yàlla na yàlla teeru teral la ci àjjana yi gën a kawe waaw maa ngi la koy ñaanal ñëpp a ngi la koy ñaanal ñëpp ñu la xamoon ci sa mbaax sa gorek ñu ngi la koy ñaanal voilà foofu laa yem débat de borne fonten yooyu ay cag caga te boo xoolee internet bi nag ña fay débat ay caga yu mag lañ bu fekkoon caga ju génn di wax góor ña nga tëddee génn na la bàyyil fenn yow doo jullit tëddee nga ma kon kon kon kon gis ngeen ne commentaire du bëri réew mi bu fekkoon ku nekk lu mu xamal nit wax ko kon commentaire yi du bëri boo fa ñëwee noo julli kenn ko ñaanal ñu fekk la Abdallah ñu <laughs> jigéen ñi nga tëddee yëpp ñëw ne ah Abdallah yow yow ñi ma ngaa wax loolu yow yow bu ma tëddee yow bu may tëddee yow kii nga ma keneen beneen gel ñëwaat ne Fatoumata ñëw ah Abdallah ñi may ngaa wax yow yow yow jullit nga yaa ngi fàttali ba ma tëddee fii do Abdallah dootu ko dooleeti billahi boo boo la ñëwaatee da ngeen fekk Abdallah dindi commentaire am daw ko day dindi commentaire am daw bu fekk boo leen fa fekkoon benn Fatima bu toog na non jullit bu ko kee ñaanal faral yu ko laal yëpp ñëw <laughs> benn moo laa ñëw na ah, gaa Fatima xanaa doo wax loolu de ba ma lay tëddee bul fàtte de wala du neewa woon jullit ba ma lay tëddee di la ñam-ñamee neexa xanaa neewa woon jullit Moussa ñëw na ah, gaa Fatima yow xanaa <laughs> danga maa fàtte ba nga duggee sama néeg ba ma ñam la fa ñam yu tàng yooyu noonu xanaa doo woon jullit léegi ngeen gis Fatima effacé commentaire am ndaw mais comme day suturalante moo tax ku neex toog fu la neex lekk ba say tàttaa nga ñëw naan non bu ko ñaanal <laughs> jullit la na ku nekk ñëw fekk kuy wax eh ña fay commenté naan ay jullit kenn du ko jullit la ñuy ñaanal ak ku dul jullit duñu ko dama ne ñëw leen boo leen fa fekkee jigéen yi ngeen commenté boo leen leen ñamee ngeen xam xamal lañ kii ñam naa ko te nee woon na jullit te ba ma koy ñam mu may jox ndar payanam nee woon na jullit te ñam naa ko façon ñam bu ne bu dee góor la muy xutti ko ci yow tam bu jigéen ñëw bind na eh, génnal fii génnal fii laa la wax bul dugg ci euh, euh, kaar yàqu yi yoo xam nga waa xam naa la ba ngay wooyee jullit nga te man nii ñam nga ma te te te duma sa jabar njaaloo te looloo gën a xaram fuuf ñu nañ ñu may jàmm waay kon sama gars asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu peace and amaaw ay naa fekk fan ak rambaaja ko mën a duula ko mën a commenté te ku la gën a nekk naafeq nga ne ma kii la ku la dàq duul nga ne ma kii la sàcc ki fen ak njaaloo seen àdduna la lañu ne te yéen di ñaanal jullit di ñaanal <laughs> gas